asalaamaaleykum mbokkee xaritu internet ñu ngi am mbégte bu mag a mag a mag ak contentement bu baax a baax di leen siyaar ku ci nekk sa tur ak sa sant fu waay mën a nekk ñu ngi lay béggee bu baax a baax tey nag dañu bég li tax ñu bég mooy Sadio Mané nga xamante ne doomu sénégalais bi nga xamante ne ni tey euh, indi na ballon d'or fii ci Afrique di ko xamante ne ni ndaanaan di jàmbaar diggoon ko sénégalais yi daaw ren mu ñëw indi ko loolu nag di woon ne njàmbaarteem ak xarañteem ak fierté bi nga xamante ne am na ko fii ci Sénégal tey dañu ñëw fii ci diwaanu Walfadjiri fekk fi journaliste sportif yi nga xamante ne ni seen xam-xam màcc ci na lool ci wàllu sport ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci seen gis-gis ak euh, par rapport ak ballon bi par rapport ak quatrième position ballon d'or mondial tey euh, lan lañ jàngat ci performance su Sadio Mané daaw ak ren. tey lan la ñu xaaree Sadio maane aussi ci Sénégal ci ay réalisation waaye ci wàllu football ci icône Sénégal waaye aussi tamit ci euh, euh, club am Liverpool bi nga xamante ne nii tey soxla nañ ko mu ngi fa ak yeneen club yi nga xamante ne soxla nañ ko lu jëm ni Real mbokk yi xarit yi seen mbokk seen xarit moo nekk ci euh, micro bi Malcolm mu nekk ci caméra bi ñu ngi am mbégte nañ ñëw dugg Walfadjri xool journal sportif yi saafante ak ñoom waxtaan ak ñoom merci beaucoup c'est maintenant Euh, ñu ngi fii ci rédaction bi nga xamante ne ni fii rédaction presse écrite bu Walf Quotidien fii ci groupe Walfadjri tey dañu ñëw dugg ci rédaction bi fekk fi ay journalistes sportifs yi nga xamante ne seen xam-xam màcc nañ ci wàllu sport ak ñeneen ñu ñu ñu tàllal leen micro bi ñu wax ci li ñu xam ci Sadio Mané ñu ngi fi fekk Mamadou Dieye euh, di journaliste sportif Walf Quotidien groupe Walfadjri ci télé bi comme rajo bi Mamadou ñu ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di wax asalaamaaleykum jërëjëf. Ah, jërëjëf maa ngi leen di fay. di wax maaleykum salaam ak euh, di nuyu seen bépp internet boo xamante ne moom moo leen di euh, seetaan à travers euh, le site. ok Mamadou tey dañu ñëw fa yéene waxtaan ak yow yow sa xam-xam da nga di journaliste sportif sa xam-xam màcc ci wàllu sport tey soo doon dox bilan wu Sadio daaw lan nga ñuy lan nga ñuy résumé. waaw bon Sadio Mané moom bilan bu ñuy wax ci moom mën nañ ne doon na benn bilan boo xamante ne daanaka ñu bari xam nañ ko parce que daaw ñëpp xam nañ ne Sadio Mané euh, si année 2019 bi si la Sadio Mané demee euh, finale Coupe d'Afrique contre Algérie Algérie dóor nu ci année 2019 bi si la Sadio Mané nekkee co meilleur buteur ak Mohamed Salah ak Aubameyang ci année 2019 bi si la Sadio Mané jëlee euh, super coupe super coupe. te moom moom sax bokk na si ñi nga xamante ne moom moo dugaloon ñaari but yi ci année 2019 bi si la Sadio Mané euh, jëlee si jeexitalu sax année bi si la Sadio Mané jëlee euh, coupe du monde des clubs gis nañ ne moom moo def passe décisive moom moo passe euh, Firmino Firmino dugal dernière passe bi loolu yëpp nag buñ ñu ko globaliser day def benn approche boo xamante ne c'est positif si lu Sadio Mané jot a wane. ak si lu Sadio Mané jëlee ballon bi nga xam ne récemment moom lañ ko jox loolu day nekk loo xamante ne ko résumé day nekk lu logique loo xamante kenn mënu cee wax dara parce que d'ailleurs sax ballon bi nga xamante jox nañ ko ko c'est pas quelque chose boo xamante dafa dafa bett nit ñi parce que ñëpp xamoon nañ ne moom moo koy jël la preuve ñi waroon ñëw joganteeg moom ñëwnu seen absence kon donc rek loolu ça dafa doy sëkk rek pour wax maanaam jaloore bi nga xamante ne Sadio Mané def na ko doy sëkk pour wax ne Sadio Mané tamit di nga xamante ne jox nañ ko ko yàggul dara ñëpp di ko savouré maanaam lu logique la lu yell la. Mm-hmm. ok daaw dafa ñëw euh, nekk deuxième position ci ginnaaw Salah promettre sénégalais yi ne que ni déwén dinaa ko jël si déwén ren mu ñëw def performance bi nga wax ni bu extraordinaire ñëw jël ko saadi à euh, analyse boobu noonu lan la c'est-à-dire. waaw lu ñu ci mën a wax envers surtout Mohamed Salah parce que boo xoolee lu tax mu doon topp ci euh, ginnaaw Mohamed Salah il n'était pas assez intelligent ci côté boobu noonu quoi mais ba mu demee ba yenn analyste yi xool ne Sadio Mané mii c'est lui qui a fait Salah si la xamee ne moom mii kat ah, moom tamit jot na sëkk moom tamit mu daal di am soit titre individuel jot na sëkk pour tamit nit ñi xam ne moom Sadio Mané maanaam euh, li ñu ko doon xaaree mën na ko ba mu ba mu ba mu jot sëkk bon si la jëlee ay matuwaayam. parfois comme lu mu doon def bu njëkk ba rek nga xam ne sax day war a dugal dem paas Mohamed Salah Mohamed Salah dugal après ñëpp daal di wax Mohamed Salah loolu yëpp tamit mu dind ko ba set wecc yaakaar naa modification yi moom moo tax tey Sadio Mané fi nga xamante ne na ko fii parce que au auparavant moom comme ni ma ko waxee il était trop altruiste envers Mohamed Salah

gagné ballon d'or africain titre boo koy gagné dañ lay woo 24 heures wala 48 heures sax avant ne la yow yaa ko gagné xool lan la ñuy defee soit ay documentaire wala ay nangam nangam kon Sadio Mané kon xamoon na ne en 2018 moom nekk woon ne moom moo waroon gagné ballon d'or euh, africain bi mais def na déplacement ñëw parce que dëkkam nañ doon joxe euh, ballon d'or africain bi euh, ñu jox ko naataangoom loolu loolu moo gën a metti ñu jox naataangoo bi ballon d'or après mu promettre sénégalais ne bii di ñëw moom dina dina dina dina dina dina trôné wu comme euh, lum nu ko diggoon tamit yàlla def mu def ko présentateur bi muy Eto'o wax na ko ci ay kii xëy na peut-être sénégalais bi bàyyum ci nee na ko ci euh, euh, ci été là ci a été Dakar et aujourd'hui tu es maanaam foofu li muy wax mooy maanaam Sadio c'est un perte moom. perdant bu nangu perdant la waaye tamit gagnant bu nangu gagnant la quoi voilà léegi ñi si nag ñoom égoïste képp la nag mënuñu ko ah, rafetal ba mu rafet kaawu sax Mahrez sax moom moo gën a mën moo gën a euh, peut-être mën nañ ko comprendre parce que Mahrez dafa waroon football dafa toll ci benn moment boo xamante xëy na moom tamit dafa bëgg a ñëw fi nga xamante ñoom Sadio Mané ñëw nañ parce que d'autant plus que 2016 moom moo nekkoon Ballon perdre son lustre d'antan léegi nag lu mu bëgg mooy euh, diggaat bi nga xamante ne gars yi ñëwoon nañ fi tamit dafa am euh, Manchester City boobu mu nekk maanaam joŋante bi dafa dafa dafa metti foofu noonu kon moom xëy na bu ñëwul mën nañoo comprendre lu tax ñëw d'autant plus que sax football na ba dugal moom moo dugal deuxième bii bi quoi mais Salah moom nga xam ne mook Sadio Mané ñooy footballandoo ñooy defandoo lépp mu mënu woon football benn match boo xamante ne Sadio Mané du ko football mënul def préparation boo xam ne Sadio Mané du ko préparé man su ma gis-gis maanaam lu rafetoon moom mooy mu ñëw d'autant plus que dëkk am nañu ko doon joxe mu gunge Sadio Mané applaudir ko après mu jeex quoi loolu daal moo ko doon rafet. ok tey euh, performance su Sadio Mané quatrième position Ballon d'Or mondial ba pare ñëw jël Ballon d'Or Afrique ak li mu def parcours li mu def ci wàllu football ba adduna yëpp di ko coow cest lan la war a mën a jural Sénégal est-ce Sénégal jotul tey ñu organiser. d'Afrique. waaw Sénégal jot na bon titre bi nga xamante ne euh, Salah jël na ko euh, du sa Sadio Mané jël na ko maanaam dafay indi dafa indiwaat dafa sulliwaat lu bari ci ci footballu Sénégal parce que tamit mënoo ne Sénégal trois ans ngay nekk euh, meilleure équipe boo xamante ne meilleure ci classement FIFA chaque FIFA Afrique chaque trois ans consécutifs yow yaay nekk ci kaw amoo stade bu baax loolu c'est un peu contradictoire mënoo nga am benn jour bu mel ni Sadio Mané ñu koy tudd fu nekk tey ñi ñu bu ñu tey Sadio Mané di leen présenté dëkk fa la leen di présenté ak la leen di présenté ci wàllu stade kon sacre bi nga xamante ne Sadio jël na ko deful lu dul euh, indiwaat ay xalaat ci ñi nga xamante ñoom ñooy autorités yi maanaam ñu xoolaat bu baax euh, à Liverpool loolu moom moo tax mu jël quatrième waaw loolu loolu bokk na ci lu tax mu jël quatrième ak parce que euh, euh, club yi ñoom ñoo la war dooleel gën la kii gis nañ euh, récemment Jürgen Klopp bañ ko posé question ne ko entre Mohamed Salah ak Sadio Mané kat moo war a jël ballon d'or africain bi dafa ne non ñoom ñaar ñëpp mérité nañ koo jël loolu loolu ko kii parce que d' accord nañ parce que ñoom ñaar ñëpp moom mooy seen entraîneur mu def noonu est que lu tax def ko woon ci diggante Van Dijk ak Sadio Mané pour wane ne ñoom ñaar ñëpp moom moo see ànd mais defu ko dañoo jël Sadio Mané esnobé ko tege ko fële pour montrer que ne bon Van Dijk moom moo fi nekk moom moo ko war a gagné les yeneen légende du club comme euh, Gérard euh, Gérard dégg na nu wax wu ne kenn mérité wu ballon d'or bi ku dul Van Dijk euh, ñeneen ñi tamit ay ñoom Milner ñu bari ñu doon wax ci ballon d'or bi bari na maanaam doole boobu ñu mayoon. Van Dijk bu ñu ko mayoon Sadio Mané Sadio jël ballon moo gënoon yomb fuuf ñu Van jël ko bu ñu jàpp loolu bu ñu ko jàppaloon Sadio Mané mu jël ko moo gën a ci mais malheureusement club ba maanaam euh, mi ngi def nag ay jalooreem mais maanaam euh, kii bu war daal amu ko fa. waaw da ngay xool ci jawante yi sax bu mas yi di daw da ngay dégg rek gaa yi naan moo Salah moo Salah di way Salah wala ñu jékki-jékki rek naan. oh Seigneur di waay kii la quoi fit mi ñëw mais c'est rarement ngay dégg ñuy way euh, Sadio Mané alors que Sadio ñoom bu ñu dugalee moom moom mooy wàcc jël bal jox la ñu dugal mais xoolal loolu rek injustice boobu noonu waaw. ok mbokki xaritu internet yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm suñu mbokk suñu xarit euh, di journaliste sportif Mohamed lañ fi fekkoon ci Walf Walf Quotidien moom nag nekk na ki nga xamante ne xam-xam na lool ci wàllu sport ñu ngi am bu baax mais tey sa dernière question sa dernier moom mooy laaj la euh, tey soo amoon. li ngay li ngay li ngay li ngay message booy lancé gouvernement bi jëmale ko ci wàllu sport lan nga leen di wax ay centre de formation wala ñu jàppale jeunes yi parce que gis nañ actuellement nii euh, Sadio Mané réalisation yi nga xamante ne mu ngi koy réaliser fii ci Sénégal tabax jàkk tabax euh, hôpital tabax ay ay institut gars yi di ci jàng ak yooyu loolu yëpp ci football bi la kon jot na gouvernement bi euh, jël ci ay matuwaay ba jot na sax ñu nar ko sargal ci loolu ban message ngay lancé ci loolu. ndaw a ndaw a ndaw maanaam infrastructure yi nga xamante ne moom moo manqué ci dëkk bi ñu tabaxal nu ko laaju ñu leen leneen bu fekkee ay formation des jeunes club yi ñoom ñu ngi ñu ngi ciy dox bu baax génération foot du club boo xamante ne c'est un club gouvernemental ay Casa Sport du ñu ay club yoo xamante gouvernement bi moo leen jàppale ak yeneen i ay jaraaf ak yooyu noonu ñoom ñi ngi bay seen waar ci formation euh, des des jeunes joueurs la preuve mooy Sadio Mané ci championnat bi la jógee dem rayante nekk tey lu mu nekk tey nekkul loo xamante ne ci loxo gouvernement la jaar kon gouvernement benn rôle ko séq à travers son ministre de sport muy Matar Ba mu tabaxal ñu ay infrastructure point loolu rek nañ ko laaj. merci jërëjëf.